jéba ngi ni waa le Sénégal est en train de vibrer au rythme du changement le Sénégal aspire au changement la détermination se lit sur les visages Bambey nous avons une grande université ici avec d'éminents professeurs ay étudiants yu bëgg jàng bëgg am xam-xam ñuy jël engagement que dans le cadre du renforcement de l'éducation partout ailleurs li war comme infrastructure ici à l'université de Bambey pour que nit ñi mën a jàng am diplôme et mieux bu ñu jàngee ba pare am débouché ci programme bi ñu tëral ñëw ñu jël ni engagement boobu yi daan ko def ba ngeen gis seen bopp ci réew mi ku nekk xam ne ni dans le cadre du programme bu jëm ci agriculture am na yu bare yuñ ci tënk bëgg nañu Sénégal moom boppam avec agriculture bi nga xam ni daf ñuy permettre li ñuy dundee ñu koy bayee biir Sénégal et ci loolu daanu réhabiliter ISRA daanu renforcer ISRA et ku wax loolu mooy daa renforcer également le CNLA parce que technologie moderne yi war pour mën am des productions avec un bon rendement il faut que ñu doter suñu centre yi doter suñu institut yi ci technologie yooyu accompagner leen aussi au niveau de l'État ci lépp lu ñu soxla ba rendement bu mën a am feneen avec suñu ingénieurs yi suñu techniciens yi dans le domaine ñu mën am leen même rendement gars yi bilan leen ko jaawale ah bi la dey bii bii mooy régler santé bi bii mooy régler éducation bi bii mooy régler agriculture bi bii mooy régler industrialisation bi bii mooy régler cadre de vie bi bii mooy régler hygiène publique bi bii mooy régler stress social bi bii mooy tax ñu ni Sénégal gàcce ngalama mooy tax ñu ni Sénégal ci sous-région bi amul kenn ku leen mën te je prends l'engagement que boo leen ko bàccee ba mu mat sëkk ñu doxal duñ ci teg ñaar ba ñetti at ngeen xam ne ay ndaanaan yegg si